الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اختفى آثارهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبيه Euh, noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Baara mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Abdul Karim moom Cheikh Mouhamadul Amin mi ngi nuyu mboolem mbokkitaal bi fi taw yépp waaye mi ngi jiital ci nuyo bi euh, Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne mooy xalifa Cheikhul Xadim radiallahu anhu di ko ñaanal yàlla mu may ko kàttan ba lépp lu mu naal ci yoor yi mu àggale ko ci barkeb sëriñ bi noonu it lay nuyoo cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy xalifab cheikh Mouhamadul Amin moom it di ko ñaanal li nga xam ne moom la ñaanal way juróom woowu di nuyu bu baax nag sëriñ Abdul Karim mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Abdul Aziz mi nga xam ne ñun ñépp moom lañu sàkku barkeem ci daje bi ñu daje fii tey di ñaan yàlla mu mu ñu ci ak ak ngërëmam euh, mi ngi nuyu itam mboole mbokk yi fi tew yépp ca moxtaar tudd na leen sànq waaye di beral nuyoo nag njabootuk boppam gi nga xam ne ñooy njabootuk sëriñ Abdul Karim ca mu ànd ak ñoom teew fii ci bis bi euh, Serigne Cheikh Marem Serigne Khadim mi ngi ci jataay bi ci wàllu jigéen ñi soxna maam Awa Mbàkke soxna Seynabu mbacke soxna nday soxna mam Ami mbacke soxna Faati mbacke soxna bu so mbacke ñom ñep ñi ngi fi andang ak mom ak mbollem seti Serigne Abdul Karim yi nga xamne Serigne bi def leena jabote ak ak mboolem ñep ñi nga and ak mom ak moom bi tew ci bis bi tay mu leen sante bu baax di leen gërëm bu baaxa baax waaye mu wax na itam mi ngi beral ak cant comme nim ko waxee. ni mu sant sëriñ Abdul Karim mi xalifab Serigne Abdul Aziz noonu itam lay sant mboolem njabootu Serigne Abdul Aziz ki ndax xam na ne ci ñoom la bokk mu ngi sant mboolem taalibe yi fi teew yépp ak bokk yu fi teew yépp di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala sunu jataay bi yàlla def ko muy jataayu barke di jataayu yiw di jataayu liggéeyal sëriñ bi liggéey bu mu gërëm Euh, njabootuk Cheikh Abdoul Aziz muy ay setam ñi nga xam ne ñoo def bis bii mu ngi leen di sant bu baax a baax ca di leen ñaanal bis bii nga xam ne dañ koo taxawal ca jubluwuñu ci lu dul lu baax ak sàkku ngërëmal yàlla mu doon bis boo xam ne day yàgg lool te yokk lool waxtu wu nekk yàlla dogal tey nag ñu dara jaare ko Serigne Abdul Karim mi nga xam ne mooy way juróom di doomi Cheikh Mouhamadul Amin mu doon koo xam ne moo toppoon ci sëñ Abdoul Aziz ndax sëriñ Abdoul Aziz mi ngi feeñ 1914 waaye sëriñ Abdoul Karim mi ngi feeñ 1916 ca Mbacke Kajoor keroog ba mu feeñee itam sëriñ Touba radiallahu anhu moo joxe aw turam comme ni ma ko joxe woon ci sëriñ Abdoul Aziz moo joxe aw turam tudde ko Abdoul Karim tudde ko yonente bi aleyhi salaatu wasalaam mu doon koo xam ne itam ni ñu ko waxee rek di di doomu Cheikh Mouhamadul Amine euh, doonoon koo xam ne mooy euh, ñetteelu doomam bu góor ci wàllu góor ñi muy ko xam ne ci wàllu euh, way juróom xam naa dañuy tënk ndax dafa xaw a guddi way juróom wu jigéen soxna Seynabou dara soxna Seynabou Aïdara moomee way juróom wu góor ñi ngi mi ngi tudd Serif Moulay Nasir dara moom ma nga jóge woon marok di sëtu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee itam ci sëriñ bi ci njaareem ci tënk rek euh, ba jëflanteeg sëriñ bi sëriñ bi dafa jël euh, ku ñu wax soxna Astu Mbàkke ñu gën koo xam ci Kumba ba di doomi sëriñ Maamoor Anta Sali moo ku ñu wax sëñ Seex Coro ak sëñ Balla Coro ak euh, soxna maam Xari Mbàkke ñoo bokk way jur góor ak wu jigéen muy sëriñ Mor Anta bi ko sëriñ bi joxee soxna Astu moomu Euh, ci la am ay dara ñu jox ko Cheikh Mouhamadul Amine mu am ci Serigne Abdul Karim euh, Serigne Cheikh Thioro ku ne xam na ko moo jur way juru sëñ Sidi Ndar ak euh, sëñ Amar Fall soxna maam Xari Mbàkke moom itam moo jur seriñ Assane Bousso ak Serigne Moulay Bousso ak Serigne Modou Bousso mi nga xam ne mooy way juru sëñ Mamoun Bousso mi nga xam ne mooy imaamu jumaa jumaa jumaa ju mag ji kon noonu la demee ci ci wàllu ci wàllu mbokk xam naa dañuy leeral tuuti rek ci wàllu googu. bi yàlla dogalee itam mu gane àdduna ba toll ci wàllu jàng e, woy juróom yóbbu ko kër Serigne Mor Abdoulaye Sey foofu la nekkoon di jàng alxuraan daara jooju itam nekkoon daara joo xam ne ca jamono jooja fa la ñu bari daan laxas di fa jàng si nga xam ne boo fa xasee ba dugg mboolem loo yittewoo ci sa wàllu njàng e, dan mën na faa jàppandi foofu la nekkoon jàng fa alxuraan jàng fa lu baree itam ci xam-xam ba yàlla dogal mu nopi fofa fofa sax nekkona fa ak Serigne Mahamadan Koso kooku ku ne xam nako ci walu xam xam-xam kilifa yu bare bare ci loxom lañ jaar mo len jàngal ak Serigne Mahamadan Jobbe ñom ñatt bokkon nañ fa nek ak Serigne Cheikh mom mom Cheikh Mouhamadou ramin euh bimu nopi fofu itam nek na ci Serigne Modou Diarra Gueye Serigne Mouhamadou Diarra Gueye foofee ci serigne Mouhamadou diar gay bokk na ci ñam fa lu serigne abdou Aziz ndax serigne Jar Aziz bara jaaroon na ci loxoy serigne sëriñ diar diar gay fa lañ nek ñom ñaar yalla dogal suñu borom boole leen ñu bokk daara ginaaw bu ñu bokké wayjur waye ñu bokk pas-pas bokk yitte motax tax leen suñu borom boole ñu anda anda bu rafet rafet ba ñu ko serigne abdou Aziz noppé noppé gis ginaaw bi mu noppé ci walu njangam itam ci la santi Mbàkke bari Mbàkke bari bi nga xamne tay serigne sëriñ Abdul Karim mi khalifa serigne sëriñ Abdul Aziz mo fa ne serigne Abdul Karim mi fofu len diko na nek fa la santion ba fe ñuy tudde bayit nga xamne ku fay dam ku nek xam nga ko serigne bara tudde ko bayitul Maamur nga xamne dafa da nek difa jaamu yàlla lu bare bare difa wétal boromam xamé kay buñ fa ñëk def serigne Abdul Karim moko fa def ginaaw ba nak la fa juggé ci ndigal kilifaam dem Mbàkke Njokk Mbàkke Njokk itam Serigne Baara moo ko sanc Serigne Abdul Karim bi mu jógee Mbàkke Baari euh, foofu la nekk ak gale fa ab liggéeyam ba ni mu wujjee suñu borom subhaanahu wa taala euh, kon loolu di loo xam ne mënee su ko ñàkk a euh, ba xëy na ñi xamutoon man koo xam comme ni ma ko waxee mook sëñ Abdul Aziz Serigne Baara dong boolewu leen waaye dañoo bokk pas-pas bokk yitte ndax nit lu ngeen mën a bokk itam ca bokku pass pas-pas and eh, ba man na rafet eh, dogal itam serigne abdou rassid doylo won ko ci anam yépp momit mu doylo won serigne abdou rassid ci anam yépp ñu jaxaso won lool nak jaxaso bobu firne la ci serigne Abdul Karim mi nga xamne mom lañu tudd bis bi tawam bu goor mi ngi ko tudde won serigne abdou rassid loolu di lo xamne ñu bari xamuñu ko eh, kii fi di sëriñ Abdul Karim di khalifa sëriñ Abduraziz Aziz sëriñ abdul karim mu sëñ baara mi moo ko tudd tudde ko boppam ci ndigalul sëriñ abdul asis loolu itam di loo xam ne relation mënu koo mënu ko kawe mu doonoon koo xam ne ginnaaw bi mu jàngee itam ku jëfe woon la mu doon jàng la ku jëfe woon la mu doon jàng la ca yàlla tax ca jàng bu ñu ko dee wax comme ni ko suñu kilifa gi waxee ci wàllu xam-xam euh, tax wax ndax xam-xam bu amul rek amul mu doon ku ku sàmm la woon ci wàllu xam-xamam Euh, firnde biñ ciy joxee ci sàmm mooy mas na am bis mu war a aw fasam fas wa romb benn toolu dugub bi mu rombee toolu dugub bi am lum ca yàq seex ko waaye daa wàcc fexe ba la nekkoon ca gémmiñu fas wa génn ba set mu doog a jàll euh, jàpp naa ne képp koo xam ne yaa ngi sàmm sa jur du lekk lu moomut yow ak sa waa kër taxu ñuy wax kon nit la woon koo xam ne adina ak li ci biiram dafa doyadi won ci kanamu ci kanamu diineem addunaam dinem monekon nekkoon moo nekkoon bëgg-bëggam nekkon yittem euh ma ngi gis ben leetar bu ko sëñ Aziz di bind di ko wax ne ko yow Abdul Karim war nga sante yalla bu baakha a baax ci njub gi mu la may ndax jamono ji day jamono jo xamne jub dafa jafé lol motax ku ci am dara lu mu tuti tuti war nga ko fonku te denc ko non la ko ko waxe ci kon sëñ Abdoul Aziz comme ni ma ko waxee ku ko xam-xam ci ni ci wàllu njub euh, la sëñ bu Buso seere woon ci moom daa wax ne Abdoul Aziz li tax ma xam ne dafa jub mooy man gone bu jubut du ma ñemee te moom daf maa ñeme kooku ma wëlbati ko seereel sëñ Abdul Karim lu mel noonu loolu lépp nag nga xam ne euh, bokk na fa mu war a bokk comme ni ko sëñ Ahmad mi doon leerale ci wàllu euh, judd bi ak donte xëy na loolu taxuñu fee toog waaye jàng na fa mu war a jànge jëfee na xam-xamam ci yàlla rekk tax waaye lépp nag gisu ko woon la ko yitteeloon mooy ak bi ndax xam na ni ak bi rekk mooy mën a xet ni tey tey ak ëllëg ginnaaw boo jàngee di jëfe sa diine na la ko suñu borom digale wala nga di ko jëfee sa kem kàttan moo taxoon mu nekkoon jëwriñu sëñ Abdul Asiis ci lépp waaye mu nekkoon jawriñam ci fépp waaye mu nekkoon jawriñam ci ñëpp mu dem ba mboolem loo xam ne ay liggéey la yu sëriñ Abdul Aziz Ba radiyallahu anhu di daan deflu moom la ko daan sant mu di ko jiite ba dëkk bii nga xam ne mooy Touba Ñaani sëriñ Ahmed Ndiaye Ngiraan tudd na ko léegi bi mu koy gor nga xam ne wax nañu ne mooy dëkk bi gën a sori ci sanc yoonu murid yi moom sëriñ Abdou Karim moo ko jiite woon àndoon ak taalibe yi jiite leen ca lépp nag ba liggéey ba ba liggéey ba sotti kon moom xamoon na ne dëgg la jàng baax na jëfe sa xam-xam baax na li ëpp solo ci nit ki mooy jub mooy lépp loo xam ne sunu borom digg na la ko nga di ko def lépp lum la tere doo ca jaar ca loolu ca la nekkoon waaye nag gisutoon loolu lépp lépp da koo jaayoon jënde ko ak taalibe ak taalibe rek moo ko yitteloon euh, mustawan si Abdou Aziz Baara lenn lu dul ak taalibe te ku ne xam na ne ak taalibe mooy al adabul mardi yi mooy teggin yu ñu gërëm mooy ak taalibe te Serigne Touba radiyallahu anhu dafa wax ni képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk la mu bëgg ndax nee na teggin mooy alal ji gën a am solo àddina ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit di mën a damoo kon euh, juddoo xam-xam ak yépp matu da damoo ni ko suñ bay jaxate waxe ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ndax dootu gis baaxam nga sax kon moom loolu lépp daf ko jaayoon jënd woon ko ak taalibe toppoon ci ginnaaw sëñ Abdul Aziz Ba radiyallahu euh, moo tax bi mu xamee na loolu euh, mooy doxinu ak taalibe digg mag sëriñ Abdul Aziz mu fexe ba lépp loo xam ne war na ko ca fexe na ba mu ba mu wàccoo ak moom ba keroog bi muy làqu di génn àddina ci ndigal la nekkoon booba sëñ Abdul Aziz radiyallahu moo ko yónni bi mu ko yónnee yàlla dogal ci bisub talaata ci tàkkusaan ci ngoon diggante timis ak tàkkusaan la ñu wax ci la ci la wàcc bu liggéey foofu itam euh, lu yéeme xaw na fa ndax booba fekkoon na sëñ Abdoul Aziz mi ngi woon ci yoonu Gàmbi doon dem Gàmbi te booba ku ne xam na ne yu mel noonu bu xawee ngir nga yëg ko day jafe ndax booba leetar moo xew te mën nañ la ko bind ay fan xëy nag nga doo koo yëg waaye sunu borom ci yërmandeem ci kàttanam ci xereñam Euh, dimbali na sëñ Abdoul Aziz Baara ba mu wàññi ko te kenn xamul lu tax mu wàññi ko bi mu wàññi ko ba egg si ci lañu ne ko sëñ Abdou Karim làqu na muy lu yéeme yéeme loo xam ne mbirum sunu borom subhaanahu wa taala la keroog bi mu ñëwee ci àllarba ji alxamis ci yoor yoor la ñu ko denc euh, bi ñu koy denc sëriñ Abdul Xaadir radiyallahu anhu moom Cheikhul Xadim moo ko moo ko taxawu bi ma ko taxawee ñu denc ko bi ñu ko dencee ba noppi sëriñ Abdul Aziz dafay ñëw ci kër gi daal di wax ne Serigne Abdul Karim mii de képp koo xam ne jaale woo ma ko man nga maa bàyyi bis nekki tey keroog lool la Serigne Abdul Aziz wax kon kooku am na fu mu àggoon ci moom am na lu mu jàppoon ci moom mas na ko wax ne ko yow yow Abdul Karim na nga xam ne maa ngi lay gërëm fu ma tollu dellu waxaat ko ne ko maa ngi lay gërëm dolli ca la ma la gërëmoon ndax li ma yaakaaroon ci yow lépp def nga ko kon làqoon na gërëmal si Abdul Aziz ginnaaw ba mu làqee ngërëmal cheikh mohamadul hafiz te laq ngërëmal cheikh Abdou aziz mooy Nah ngërëmal yàlla ndax laq koo xam ne làq na ngërëmal yàlla ku ne xam ne ne boo kooku am nga ngërëmal suñu borom nag la nga koy toppe lépp di ndigalal suñu borom subhanahu wa taala kon xam naa du ñu mën a guddal ci diggante boobu ndax comme waxtu wi dafa guddi e, foofu rek lañ ci tënk incha taala di ñaan yàlla mu yokk seeni leer ca ci seen barke Euh, sëñ Cheikh Bara Karim nag dafa am wax joo xam ne daf ma ko jot li ci xam naa daf ko yitteel ndax dafa wax ne euh, nañ ko seeral ci mbooloo mi ne euh, sëriñ Abdul Aziz radiyallahu anhu bi ñu demee ñoom njabootu sëñ Abdul Karim ba gisatuñu sëriñ Abdul Karim moom Cheikh Abdul Aziz moom moo leen taxawu ci lépp moom bi nga xam ne mooy sëñ Cheikh Bara moo ko taxaw moo ko sampal kër mboolem itam njabootu sëñ Abdul Karim gu jigéen gi moo leen yóbbu fa ñu nekk loolu di loo xam ne. moom lu rëy ci moom la te itam mu wax ne mosu koo wuutale ak ay doomam mosu koo wuutale ak ay doomam comme ni nga ko waxee sànq mbooleem njabootu sëñ Abdou Karim gi itam mu taxawu leen ba seenum njàng àgg mu taxawu leen ba sampaleen kër taxawu leen ba ñu mën a taxawu seen bopp loolu sëñ Cheikh Bara yi wax na ma ne sëñ Abdou Aziz moo leen ci taxawu ba am na bis e, nee na sëñ Abdou Aziz wax ne Cheikh Bara mii day sàngoo suuf ca defaluma ko lu ñëpp teg bët loolu bu bu amee la lu diis ci man lay doon kon yéene ju kawe la amoon ci sëñ Cheikh Bara Karim waaye yéene ju kawe la amoon ci njabootu sëriñ Abdul Karim ndax na ni mu ko waxee mënuma ko waxee noonu ndax moom moo ko dund ak moom am na bi sax mu ne eh, ba mu nekkee ca daara ja dafa xawoon a tawat bi mu ñëwee tëdd ci kaw lalu sëñ Abdul Aziz waaye bi sëñ Abdul Aziz ñëwee wax ko dara dafa ne sama lal bi ngi tëdd rek la wax yem ci ak moom ca ku ne xam na jamono ji Euh, am na ci ñoo xam ne bu demee yoon noonu xëy na duñ jëflante ak yow noonu loolu nag jàpp nit ki ak jàppe ko sa bopp ak jàppe ko sa doom euh, munta munta weesu loolu noonu itam lay sante waaye li mu mu li mu seq ak sëñ Abdou Aziz mooy ñaan ca ba mu ko noppee gis ba nëgën yi mi ngi ci di ko suñu borom di yokk ay leeram fu mu toll euh, noonu itam la wax ne noonu la ko doomam yëpp jàppe sëñ Moustapha Abdou Aziz mi fi jiitoon sëñ Modou Baara ba ci sëñ Abdou Karim yi ba ci njabootu sëñ Abdou Aziz gi fépp foo xam ne sëñ Abdoulaye Sy tegoon na ko fa doon na ko jëflante ak moom nee na ñoom ñu ngi koy jëflante ak ñoom loolu sëñ Sidi Ahmed Mbacké mii toog rek doy na ci firnde nga xam ne moom moo ma abal sëriñ bi ba tax ma fii di wax euh, kon euh, loolu firnde la ci ndax am na ci njaboot sëñ Abdoulaye Sy ñoo xam ne tudde nañ ko doom tudde nañ sëñ Cheikh Bara Karim kon ñoom jàpp nañ loolu waaye sëriñ bi mi ngi wax ne xam na cër bu ngeen ko jox xam na ni ngeen ko jàppe waaye mi ngi ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala na seen ñaari wayjur yi ànde woon ànd bi continuer ba seeni sët di ko ànde noonu ba ci yomal xiyam ca ñu daje cee ngërëmal sëriñ bi ndax loolu rek mooy li kenn mënta ñàkk muy ngërëmal sëriñ bi kon yàlla ñu yàlla taxaw te boole ñu dimbali maa ngi jégalu bu baax